أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko naa loolu mbokki jullit yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala toll ci suratul maida ci kàttanu borom bi ñuy jël benn aaya muy aaya treize benn aaya bi sunu borom mu nu ciy jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy xurmatu naqdil mawaathiq wa naqsil uhud wa laa siyama ma kaana bayna al abdi wa rabbi bokki jullit yi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi araamal ci ñun fecci pacte yi nga xam ne dig yi nga xam ne moom lañ waxante ak moom pacte yépp moo araama fecci rawatina nag bi dox diggante jaam bi ak boroomam moo mbokk yi kon ku nekk ci ñun war naa laaj pacte yooyu ak dig yooyu yan la ba mu mën koo sàmm mu moytandiku digganteem ak boroomam ay pacte nekk fi ak ay contrat yoo xam ne yu borom bi feddali la yu dox digganteem ak jaam bi ba pare jaam bi di ko fecc ku fecci pacte bu doxoon sa diggante ak ay nit ku fecci kóllëre gu doxoon sa diggante ak say kilifa wala say mbokk wala wala wala yaakaar naa ne yow dootoo doy rawatina jaam boo xam ne boroomam subhaanahu wa taala dafa wax ak moom ne ko lii la ba jaam bi fas loolu mu wóor ko ne lii la yàlla moom lii la yàlla bëgg lii la yàlla wax mu fecc lépp kooku ëllëg digganteem ak boroomam kenn du leen mën a àtti loolu nag ab jaam da ko war a moytandiku danañ jàng tey ci aaya yi nekk sunu kanam yàlla araamal gi mu araamal ci ñun fecci pacte yi nga xam ne moo dox sunu digganteeg moom ñaareel bi mooy alxiyaana wasfun laazim li aktharil yahud danañ jàng wor melokaan la gu sax dàkk ci yahud yu baree baree bari looloo tax fa qalla man salima minhum min hadha al wasf looloo tax néew na mbokk yi ci yahud yi ñu mucc ci melokaan bi yàlla wax leen ne ay workat lañ wor moom ci boppam rek diine da koo tere ak wor gi lu mu mën a doon wor yàlla war yonent war alquran war sharia war war war war mbokki jullit yi war yàlla da koo tere alxiyaana waaye melokaan la gu yàlla melal yahuud yi wasfun laazim li aksaril yahuud yahuud yi yàllaa leen jox melokaan yooyu ndax bëri luñ koy def loolu moo tax borom bi ne dana néew sax nga gis ku mucc ci ñoom ñoom ñëpp am melokaan bi daanaka daanaka yahud bu dul wor amul pour ngeen xam lool rek xool leen diggante Palestine bii nu nekk ni ak ak ak Israël bii ñaata pacte lañ fa signé ci foofu ñu naan umamul mutahida foofu ngeen di woowee ah foofu ngeen di wooñee woowee dégguma ko de Nations Unies ñaata pacte lañ fa signé kenn mënu ko lim waaye ban la ci yahud yi respecté benn kon yàlla li mu wax mooy dëgg yàlla musunoo wax loo xam ne day deñ yàlla nee na yahudi ay warkat lañ te yéen yéen xam ngeen ci dara yéen a ngi koy gis guddi bëccëg lenn ci ñun ñu toog fii ci biir jàkka ji ba ñu juddoo ba léegi Israël mu ngi xeex ak waa Palestine wala ah bi ngeen juddoo ba léegi yéen a ngi dégg territoire occupé wala d'accord ngeen da ngay gis sax ay dëkk yoo xam ne dañ koo dagg daal di may genn wàllu dëkk ba indépendance wala wala Soudan dañ koo dagg Éthiopie dëkk yu bëri dañ koy dagg di ci génne yeneen dëkk waaye xoolal waa Palestine ñoom ñoom moom seen dëkk américain yeeg tubaab yeeg ñeneen ñi mel ni ñoom anglais yi ñëw dajale yahuud yi ci àddina bi yëpp indi leen ba Palestine daal di bombarder benn côté ña fa nekkoon daal di daw génn ñu daal di fay wàcce yahuud yi moomal leen ko ba ba léegi saa yu ñu xëyee suba yahuud yi danañ avancer ay mètres ci biir Palestine saa yu ñu xëyee danañ avancer saa yu ñu xëyee danañ avancer ba léegi daanaka léegi ñu nangu dëkk bi saa yu ñu xëyee rek danañ avancer mètre waaye loolu yëpp su ngeen ko gisee rek mooy li gars yi di wax rek bukki saa yu yebee ponkal ca ponkal ma la su yahudi yi yabee tey jullit yi rek ci jullit yi la waa jullit yee dëgguwul jullit yee gëmul seen diine jullit yi ñoo wootewu rek jullit waaye jullit gi dëgguwul moo tax lenn saa yi dina ma jaaxal trop ma dégg lenn ci ay jeunes ci réew mi ci àddina bi ne dañuy dem jihaad soo laajtee waaw ñoom ñi organiser jihaad naan dañuy jihaati ku ñuy xeexal ñu ne la ay jullit maa jullit mooy dem jël arme di xeex jéeg jullit aka neexoon ñu dem Israël len loolu moo jaaxal kuy jihaad kay dëgg-dëgg gis Israël bi nga juddoo ba léegi mi ngi duma waa Palestine bi nga juddoo ba léegi yaa ngi dégg jàkka jooju nekk tudd masjidil aqsa mi ngi ci loxo yahud yi te mu nekk première xibla ci islam mu nekk troisième mosquée ci islam ñu nangu ko ba amul ab jullit bu fa ñemee teg tànkam naan damay visiter ji wala damay ziyaara ji te bokk na ci sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam ziyaara ji masjidul aqsa ngeen romb ko fi di bombarde ji ay jullit di rey ay jullit yéen ngeen di jaxaat xanaa baatu jihaad léegi dafa am ay façon yu bëri yu muy teggi naka la ay jullit nekkee fee ay jullit nekk fi ñu jàkkaarloo ku nekk daan allahu akbar laa ilaha illa kënu yi di dal ku nekk di bàkku ne damay jihaad mbir yu yéema moo am ci sunu dëkk sunu àdduna bi tey su jullit ñi jàkkaarloog yéeféer yi ay ragal la ñuy doon soo jàkkaarloog ay jullit nag nga doon gaynde ku ci jaaxalul man jaaxle naa ci waaw ndeysaan di rek sëñ bi waxoon rek laa tuaadi man yuxrij faahu bi laa ilaha illa allah waxuma sax nga bombardé wala nga rey waaye waa ji wax laa ilaha illa allah sax mu ne bul ko def noonu bul ko def noonu de kuy wax laa ilaha illa mu ne bul ko noonu ki wax laa ilaha illa allah yow xamatoo ci mbiram dara yàlla xam zeyd ba mu reye waa ji wax laa ilaha illa allah dootu ko defati de lu rëy moo ko ci fekk ba mu ne yonent bi waa ji daa ragal suñu jaas yi ragal mbooloo meeg takbiir yeeg fas yi moo tax mu wax laa ilaha illa allah xam ngeen yonent bi lan la wax saxaaba bi Zeyd ne ko ndax yow yaa dugg ci xol bi yow yaa dugg ci xol bi ba nga xam laa ilaha illallah bi mu wax dëgguwul kon mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala lim nu wax mooy yahud yi day ñooy sunuy noonu ñooy noonu yàlla yi mag yi ndax ñoom day fecci kóllëre war yàlla mooy seen melokaan yàlla sax moom leen melal ne ñoom ay warkat lañ mu ne loolu sax melokaan bu sax ak ci ñoom la bu fa dëkk mu ne looloo tax néew ci yahud yi ku mucc ci melokaan bii ñetteel bi ñuy jeexale dars bi mooy istihbaab al af ind al qudra yàlla daa bëgg ki am kàttan ki am doole ki mën muy jéggal ki mënul ki am mu yërëm ki amul ki mën mu dimbali mbokkam mi mënut yàlla daa bëgg borom doole yi ñu jàpp ci loxo ñi néew doole yàlla daa bëgg ci borom xam-xam yi ñu laaye biir ñi xamut moo tax mu ne istihbaab al afu ind al qudra dañoo bëgg ku am kàttan bis bu nekk au lieu que nga yor sa karwaas di dumawaate rek au lieu ngay jaay nit ñi ne maa leen mën maa leen ëpp doole comme tey ni mu amee ci jomo ci jamono xam nga man duma sa morom xam nga man dooma yab te dooma musa yab xam nga man dinaa la duma te sama loxo du la laal xam nga man xam nga man xam nga man yooyu yooyu la yàlla bëgg ñu teg ko ci suuf yàlla mu ne nañ ko mën sax te bañ ko wonee mbokk yi nun ak yàlla ko ëpp doole ah dafa mel ne gars yi dañuy sikki saaka ba tontu wuñ de ah yàlla ko bu doole ku nekk na bat kon yéen ëpp yàlla doole lu la ngeen noppi nun ak yàlla ko ëpp doole ah waaw kon maa bëgg a jaaxle waaw lu nit tayal tayal kay buñ ko laajee yaa yàlla ko ëpp doole moom wax dëgg yàlla par naa mën a wax ne yàlla nag ah noog yàlla ko ëpp doole ah est ce que yàlla wan nañu ko yàlla wan nañu maa leen ëpp doole di nu noggatu bu dégg bëccëg noo ngi nii ci lu nu neex te yàlla waxul dara noo ngi nii ci lu nu neex ci suñuy bànneexi bakkan ci ci ci bàkkaar yu dul jeex yàlla xam na ko te mën na ko régler léegi ndeysaan waaye xoolal taalewulu sax te leer na ko ne ñii nii ñëpp ay bandi lañ ay saay-saay lañ ay nangam nangam lañ ay nangam nangam lañ waaye yàlla ne patt ndeysaan din xool toppunde léegi nag moo tax mu ne inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazal yàlla nee na maa leen ëpp doole moom mën leen a tooñ guddéet ba cig waaye mu ne man mii sax tooñ googu dama kaa araamal ci sama bopp kon nag yéen bu leen tooñ kon yàlla nu ëpp doole di nu baal di nu jéggal di nu jéllal mu ne ab jullit bu am doole am kàttan am mën-mën am am am am nay jéllale nay jéllale di jéggalee loolu mooy melokaanu ab jullit wa huwa min xisaali saalihin loolu dafa bokk ci melokaanu ñu ragal yàlla ñu baax ñi nga tooñ leen ñu mën la mën ko régler mën ko faj mën laa néewal doole trop waaye ndeysaan day mel ne sax defoo dara waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan allahu akbar allahu akbar léeg-léeg nga gis ci histoire nit ñu baax ñi koo xam ne mënoon naa fayu rek musibaam barki dem dañ may nettali benn xis ci Cheikh Abdul Aziz bun Baz rahimahullah benn sénégalais bu demoon di ko wax ay projet yu mu koy financé projet islamique daara nangam nangam nangam nangam is jàkka nangam nangam nangam nangam ba mu bëri góor gi daal di xëcc chèque bindal ko 15 millions pour mu dem ci banque bi ñu tiire ko waa ji daal di génn daal di changé chiffre 15 bi yokk ko 5 bi daal di koy yokk bu mu demee banque waa banque xool chèque bi ne beg chèque bi dañ ko dañ ko falsifié kii laal na numéro bii ñu mënut a waaji dugal ci oto jubal kër kër sëriñ bi ñu ne ko kii yaa ko bindal chèque mu ne waaw lu xew ñu ne daa falsifié chèque bi chèque chèque bi ne eh subhanallah man la maa juum bi bi bi mu koy bind la du moom de dem leen ngeen téeral ko mu de waa ji daal dem ñu tiiral ko la mu falsifié woon mu dem ak moom est-ce que seex bi moo ko falsifié ah waa ji leer ko ne góor gi xool na ko xool na góor gi fi ko mënate mu tëdd ni nii xool góor gi góor gi xool ko daal di téye bopp bi ne police yi man mii maa juum sama biig bi moo faussé lii dem leen ngeen tiiral ko kii jaamu yàlla keneen ki dafa dem wax ay jafe-jafeem yëpp ne lu mu liggéey islam nangam nangam ñu jox ko mu ñëw takk ñeenti soxna jënd ay 4-4 jënd nangam nangam ci daal di téléphoné góor gi ne ko waa ji nga joxoon xaalis bi jabar de la takk mu ne eh subhanallah loolu kay moom moo gën a yay moom jabar kay moo gën a yay kon kay gars yi bàyyi leen ko mu takk jabar loolu kay moo gën a moo gën a baax muy tabax ay jàkk te takkul kooku takkul jabar ak sikkim bi ni mu rafetee loolu kay moo gën a yay xoolal ñooñu ni ñu baaxee nga xam ne ndeysaan li ñuy jéggale di jéllale jullit day jéggale jéllale moom mooy melokaanu ab jullit kon mbokk yi lii day mooy sunu darsu tey insha allah benn aaya bi noo ngi ñaan sunu borom mu dëgëral sunu làmmiñ ba duñu génn kàddoom gi aoudu billahi min alshaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن موادعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين sunu boroom dañul ba tey di leeral musiba yahuud yi seenu mbon ak seenu salte fa axbara taala fi hadi al-aaya al-karima sunu boroom xabaar nu ci aaya bu tedd bii nekk sunu kanam أن اليهود الذين أخذ الله ميثاقهم على عهد موسى عليه السلام يهود yi nga xam ne yàlla moo siñante woon ak ñoom pacte benn contrat ci jamono yonent yàlla Muusa lan moo doon dig ba lan moo doon contrat ba bi an yuallimu ma fi tawrat ne téere bi yàlla jox leen muy téereb tawraat danañ ko jàngale wa an yuqaabilu alkanaaniyin wa yuxrijuhum min ardi almuqaddasa min ardi alquds loolu mooy lu njëkk mooy danañ jàngale tawraat ñaareel bi mooy dëkk bii di quds muy Jérusalem muy jàkk ji ñu doon wax léegi yàlla ne leen am na ñu fa nekk dem leen ngeen génne leen ndax ñooñu ay saay saay lañu yàlla yónni ci ñoom fukki lan fukki lan waaw ana ñëw leen woon tafsir bi passé lan la yàlla yónni foofu fukki góor ak ñaar ñu baax ñu ñu tànn Moussa moo leen tànn waaye lan mooy mbetteel mooy xoolal ñooyu ñu tànn ñu yaakaaroon ne ñooyu ñu baax ñi ñun ñoo gën a yées ñu fecc la ñu waxoon ak yàlla tabaraka wa taala sànni ko fële loolu la ñu yàlla di nettali tey borom bi ne fa bima naqdihim mithaqahum ci fecc bi nga xam ne moom la ñu fecc pas-pas bi nga xam ne moom lañ fasante woon ak yàlla mooy pacte ba lan la leen jural mooy xillihi dañ koo fecc bi adami l iltizaami bi ma tadammanahu tadammanahu min amrin aw nahyin dañ koo fecc sànni la mbir ya ëmboon la leen yàlla waxoon ne leen lii la contrat bi lii moo ci nekk xam nga contrat booy signé bu nekk dafa am ay numéro bu njëkk bi lii la ñaareel bi lii la ñetteel bi lii la ñeenteel bi lii la ak contrat ba na mu toll ñu jox la ko nga liir lépp ñu ne la nangu nga nga ni waa nangu naa koy ñu ne signéel nga signé léegi jeex na loolu nga signé loolu nga wax léegi engagé na la amatoo droit bis ñëw ñu ne la waaw nga ne non c'est que man dama ko signé woon rek liiruma ko moo tax lépp lu ñuy jox nit na signé bu yow mu xool lan la ba pare balaa ngay signé mu ne la signéel fii rek nga signé fii rek nga jël rëdd après ñu ne la nangam la nga neen ah man de liiruma ko woon loolu graaw la ñii yàlla subhanahu wa taala dafa wax ak ñoom ñu engagé wu ba pare ba yàlla tànnaloo leen fukki góor ak ñaar ñu sànni mbir ma fële ñu fecc ko ñoom def lu leen neex xam nga lan la leen jural yàlla mu ne laannaahum ma rëbb leen ma soril leen sama yërmande taratnaahum min mujibaati rahma léeg-léeg nga dégg ñu ne yàlla dàq na nit ku def nangam yàlla dàq na la ci yërmandeem xam ngeen loolu lu muy tekki mooy li waral yàlla di la yërëm moom nga dul defati dégg ngeen wax bi su yonent bi ne laana allah wala yàlla ne laana allah laanahu allah yàlla soril na ko yërmande xam nga loolu muy teg mooy li yàlla bëggati woon nga koy def pour mu yërëm la dootoo ko def boo doon julli dootoo julli boo doon def lu baax dootoo ko def boo doon boo doon boo jamais ku yàlla rëbb kenn dootul mun a fexe ba mu def lu yàlla bëgg ci bon rek ngay nekk moo tax yërmande yàlla subhanahu wa taala ku ko yàlla soril alku nga ku yor ku sori si yërmande yàlla ba pare am nay melokaan am naa benn téere boo xam ne xam ngeen téere bi nu mu tudd almalunin almalunuun ñi yàlla rëbb loolu rek moo nekk téere bi ñi yàlla rëbb ku def nangam yàlla rëbb na la ku def nangam yàlla rëbb na la ku def nangam yàlla rëbb na la ku def nangam yenente bi rëbb na la laa ilaha illa soo koy lire da ngay tiit te nu mu bëree ci melokaan yi melokaanu sàngam ku ko mel yàlla rëbb na la melokaanu sàngam ku ko mel yàlla rëbb na la daanaka mën na deux cent tomb mën na ko ci almalunuun ñi yàlla rëbb mën nañ de ëpp na ko sax ku yàlla rëbb du lenn mooy daf lay sori li yërmandeem lépp lu doon tax ngay am yërmandeem dootoo ko am ba pare wa muqtadayaat al izzi wal kamal yàlla day dind ci yow dootoo am teddange dootoo mat dootoo am teddange dootoo mat dootoo mat jamais pare nga dootoo mat dootoo am teddange moo tax dafa am mbir yoo xam ne nit da ko war a moytu di ku def nangam yàlla rëbb na la moytu loolu ku def nangam yàlla dàq na la ci yërmandeem iblis iblis mbokki jullit yi yéen ñi toog fii iblis ñaata bàkkaar la am benn benn bi mooy lan su jootalal aadama mu bañ aba wastakbara mu lànk ngand ngandulu yàlla mu ne wakkaana boroom xam-xam yi nee nañ foo def nii sebre nii li mooy sebre sama catu baaraam bu mag bi ba ci beneen bu ci digg bi soo ko defee nii ci suuf teg mel na kuy natt nii li mooy sebre foo ko def nii iblis julli na ko ci suuf si foo ko def nii iblis julli na ko waaye keroog ba ko yàlla sante mu bañ yàlla ne ko dàq naa la ci sama yërmande pare nga te benn bàkkaar kese la am da ngay jàng premier asamaan ñu ne iblis nangam la tudd jaamu nangam jaamu yàlla bu nangam ñaareelu asamaan jaamu yàlla bu nangam ñetteelu asamaan jaamu yàlla bu nangam juróom ñaareelu asamaan la iblis tudd iblis mooy lan borom mujj gu bon fi mu mujj moo baaxut kon jarul xeeb benn bàkkaar jarul xeeb iblis benn kese la am yàqule aadama ak awa ñaata la ñam adama yow ñaata la ñoom lu leen génn aljanna benn bàkkaar benn bàkkaar wala taqraba hazihi sajara yàlla mu ne bu leen jege garab gi ñu dem lekk ci garab gi fa azallahuma shaytaanu anha ñu dem seytaane glissé looleel ñu tarxiis ndeysaan yàlla daal leen di dàq te leen génn leen acca ca biti waaw iblis li mu jaamu yàlla yëpp ni mu toll suuf si ay jinnee fi nekkoon di yàq yàlla boole leen ak malaaka yi ak iblis boobu ku baax la woon kaana minal jinn fa fasaqa an amru rabbi iblis jinne la bokkul ak malaaka yi malaaka yi yàllaa ngi leen bind ci leer boobu yàllaa ngi ko bind ci safara mu ànd ak malaaka yi xeex ak jinne yi comme yàq nañ suuf si yàlla dàq leen malaaka yi ci kattanu malaaka yi doole malaaka yeeg doole bi yàlla may malaaka yeeg iblis ñu dàq jinne yi ci suuf si dugal leen ci xur yi ak biir géej gi moo tax jinne yi ci biir géej gi lañ dëkk ak xur yi ci àll yi ci kaaw yeeg xur yeeg biir xeer yeeg ah biir garab yi lëndëmi àll yooyu fa lañ dëkk génn leen ci suuf si complètement iblis yàlla jël ko ma yëkkati garaatam mu muy ànd ak malaaka yi waaye keroog bi yàlla ne sujootal leen aadama yéen malaaka yëpp comme mu ngi seen biir malaaka yi sujoot moom mu ne tekk taxaw yàlla dax ko ci yéen mu ndem doloolu la de iblis benn la am aadama ak awa benn la ñam ñu ne aadama lamma nazala min alsama ila al ard makasa salaasa mia sana lam yarfa raasahu ila alsama li xayaa subhanahu wa taala aadama bi ko yàlla bi mu lekkee garab gi wa yàlla dàq ko wàcce ko ind mu wàcce awa jidda ñoom ñaar ñuy wër di dox ba dese jabalu arafaat ca mag aadama toog na ñetti téeméeri at yëkkatiwul boppam bi xool asamaan ndax rus yàlla benn baakaar ba mu def ñu ne bu ñu boolee àddina bi yëpp lu ñu jooy àddina bi yëpp laa wax bu mu doon jooy ñu def ko ci ay paan ah aadama moo leen ëpp lu mu jooy ndax benn baakaar boobu yàlla baal ko ko ñun ñu nekk fii ku nekk ñaata nga am man de xam naa maa fi ëppale waaw xoolal ñee ku nekk am benn ñu lay duma nga am problème ñun ñoon ñun ñu yor ay te tiituñu ñun ñu ngi am confiance suñu xel a ngi dal dañuy lekk di suur di naan di màndi di tëdd di nelaw dara dérangé wuñu te ñu ne Adama benn bàkkaar la am rek toog na ñetti téeméeri at xoolul kaw asamaan dafa jooy bañ ne mu ëpp ñëpp luñ jooy ngir yàlla baal ñun ñu ëppale ñun suñu xel dal koo gis moom jàpp na boppam moom moom man kay xam naa moom man kay aljanna sax werantewu ma ko waaye firdaws kay lay xalaat allahu akbar ndeysaan waaw koo gis ci ñun moom moom xalaatul aljanna de danaan jannatu naim wala firdaws wala jannatul maawa lay nekk moom kay loolu ay problème ci man li waa ji wax keroog ci facebook bi man moom xam naa aljanna laa jëm sama aljanna asiran waaye diw moom safara la jëm loolu garaaw na de te waa ji wax ne man aljanna laa jëm moom du julli du woor mu ne ñun suñu aljanna déglu gi leen ko mu ngi ci facebook bi am na xew-xew yu fi am fan yi ay gaa jóg di ci tontu di dal ki defoon xew-xew bi am na ci kenn ku tontu loolu la wax dafa ne ñun suñu aljanna assuré na moom moom safara la jëm leer na gaa yi aljanna leerul kenn de yaa Muusa laa taaman makri hatta tara nafsaka fil janna Muusa saa ne yàlla ah ne bul wóolu sa bopp de ba nga gis sa bopp biir aljanna bul wóolu aboubacar sadiq radiallahu anhu wa ardahu mu ne sama tànk droite bi bu tegoo bunt ajjana gauche bi ñëwagul wóolooguma Omar ne bu ma déggoon benn baat di woote kaw asamaan naan yéen ñooñu toog ñëpp ajjana ngeen jëm ba mu des kenn mu ne man la kenn kooku man la ñun fii am na ñoo xam ne seen ajjana assuré na ah la ilaha illallah am na saxaaba bu ne yonent yonent bi ne ko waaw góor gi waxal loo bëgg ma defal la mu ne yonent bi asaluka murafaqatuka fil janna dama bëgg ànd ak yow aljanna yonent bi ne ko loolu mënuma ko waxal leneen mënuma laa dugal aljanna de waxal leneen ndeysaan mu ne man de yonent bi loolu dong laa bëgg bëgguma leneen man tamit waxal loo bëgg ma defal la tey kenn ci ñun fii bu gisoon yonent bi yonent bi ne ko waxal loo bëgg ma defal la lu muy wax may ma 4-4 wala R plus 5 ah wala may ma may ma benn baay yow jabar ju njool ba ci kaw xees baay jabar ju rafet loolu ngay wax de mbirum àdduna la hawla wala quwwata illa billah amma waa ji loo bëgg mu ne ko asaluka murafaqatuka fil janna yonent bi man aljanna laa bëgg yéen mënuma loolu mu ne loolu laa bëgg man tamit yéen ne ko kon fa ainni ala nafsika bi kasrati sujud kon de del julli lu bëri kon de del julli te na bëri del julli na bëri soo ko defee day amaana nga dugg aljanna mbokk yi yàlla nee na ñii fecc gu ñu fecc kóllëre bu ñu fasante woon ak moom lan la leen jural mu ne laannaahum rëbb naa leen rëbb moo leen rëbb lan la leen juralaat mu ne wa jaal naa quluubahum qaasiya wa jaal naa def naa man yàlla quluubahum seen xol yi qaasiyatan dafa wow koŋ moo raw xeer ye moo tax yahud amul yërmande ci jullit rey rek yahud yi amuñu yërmande ci àdduna bi daanaka ñoo yàq adduna bi lépp ñoo ko yàq ñoo yàq ndox mi ñoo yàq suuf si ñoo yàq nit ñi ñoo yàq jéeri ji ñoo yàq lépp tout dañuy yàq ndax xol yi wow lan yor alaa ne maa def seen xol yi wow kan yërmande amu ci la tajidanna asadda nnaasi adawatan lillazina amanu wal yahud yàlla nee na di nga fekk yahud yi ñoo gën a bañ jullit ci kaw suuf lu waral loolu wa jaal naa qulubahum qaasiya seen xol yi laa wowal mbokk yi ku yàlla wowal xolam lu ngeen ci xam ku yàlla jàpp sa xol bi wowal ko kan moo koy noyal lan moo tax seen xol ya wow dañoo fecc ci kóllëre ga ñu waxoon ak yàlla yàlla rëbb leen sori leen yërmande def seen xol yi wow beneen bu tax seen xol yi wow mooy yuxarrifuuna alkalima an mawaadii yuxarrifuuna dañuy soppi dañuy changé alkalima baat an mawaadiihi ca barabam dañuy fekk yàlla ne lii la ñu liir ko xam ne yàlla lii la wax ñu ñu ne non ah di arrangé wuñ ñu jël leneen def ci wala ñu ñu fekk ñu firi baat bi lii la ñu firee ko neneen comme fan yi li ma dégg ci rajo bi waa ji ne sunu sant am na ci alquran ñu ne ah mu ne waaw yàlla waxul naaqatullahi ñu ne waaw mu ne mooy gëléem bu sant njaay yaakaar naa li ci des seen xel dina ko yeggali nag naaqatullaahi mooy gëléem gu sant Jóob kon comme gëléem gi noonu la sant yàlla wax na suñu sant ci alxuraan wala am na ñoo xam ndeysaan ba léegi dégguñu nag mais dégguñu yéen a xam de yéen a xam de en tout cas waa ji nee na seen sant am na ci alxuraan ñu ne ko naan mu ne naaqatullaay naaqatullaay gëléem gu sant Jóob est-ce que naaqatullaahi loolu lu muy tekki mooy salte la gars yi naaqatullaahi inna lillahi wa inna loolu mooy yuharrifuna alkalima an mawaadii te nag da ngeen defe ne waajooju li mu wax moom loolu rek ko kese la fii ñu ëpp dañuy fekk yàlla ni nii ñu wax leneen waaw ñi naan kaw la ga nga ci alxuraan ak waaw naxuma leen de ñi ku nekk indi alxuraan aaya yi nga bëgg mu intéressé la nga ni aaya yi maa ko moom waaw ñun la yàlla di wax fii waaw ndi ma ne ma jaaxal mooy yonent bi muy firil saxaaba yi waxu woon loolu la léegi ñoom ñoo gën a dégg yonent bi alxuraan ndeysaan yuharrifuna al kalima an mawaadii dañuy jël aaya yi di ko falsifier di ko firee nu mu leen neex mus naa def benn conférence benn 31 décembre xaw ma 24 jour 24 la woon ma def ci conférence la ilaha illallah ci benn bunt kër du ma ko fàtte ba ba may dee ñu pare rek ndeke borom kër gi borom buntu kër gi daa mer ci conférence bi mu ñëw jël micro bi mu ne conférence bi dara baaxu ci ndax yéen seen conférencier bi xamul alxuraan alxuraan ñeenti alxuraan la rek conférence bi gaa yi yuuxu ma ma leen yéen yéen kii waxul ak yéen kii man lay waxal bi ngeen leen si bàyyi leen ko mu day poser question day leeral man li ma doon yéen doo yàq lay leeral bàyyi leen ko mu leeral mu ne ñeenti alxuraan a yem am na benn waaye moom mënu ko muñ mu tudd Abdallah Maane moom daa daa jëlee bagage am génn baas bi dem ñibbi mu ne yéen ay yéeféer ngeen kii di yàq ngeen toog di ko déglu ma ne ko waa demal yow demal bàyyi koog ñun mu ne ñeenti alxuraan mooy am dafa am quraanan arabiyan quraanum mubiin quraanan ajamiyan la ilaha illallah non keroog keroog jommi naa trop quraanan arabiyan loolu mi tegi yaa leen alxuraan bi maa ko defaral quraanu mubiin lu muy tekki waa ji tegale daal ay ñeentam ñeent yëpp mu ne alxuraan la bi waaw yàlla ko wax nga toog fii naan yow yow benn rek nga ci xam loolu mooy li yàlla di wax nii dëkk bi li yahud yi doon def yahud dañ ko wàllu jullit yi xam nga li yëfu yëfu yëfu yahud la woon yuharrifuna al kalima an mawaadii dañuy changer baat yi ni ko yàlla waxe woon wa yu awwiluuna maaniihi ñu koy traduire yeneen traduction yoo xam ne yonent bi ak sahaaba ya ak aimma yi imam malik shafii ahmad abu hanifa xamuñu woon loolu ñun ñu ñëw di ko traduire noonu comme da ngay jàng ñu ne alif lam mim wala qaaf wala nuun wala saad wala xaamim ñu ne allahu aalamu bi muraadihi bi zalika yàlla moo xam li mu ci namm ndax noonu la ko yonent bi doon firee benn waaye ñëw ne mais non man xam naa ko xam naa ko ah waaye dañoo xamul dara rek mais loolu yombul na ah yonent bi ne xawma ko Aboubacar xamu ko Umar Ousmane Ali aima yi yow nga xam ko ñooñu dañoo maandu woon moo tax dañoo ragal yàlla ba yonent bi ne xawma ko ndeysaan moo tax keroog ba yonent bi azaka wàccee benn waaye bañ a joxe azaka yonent bi yónnee mu lànk bañ a joxe mooy saala ba yonent bi génn àdduna mu gàddu affaire yi dajale ñëw ci Aboubacar waaye Aboubacar man lay sama azaka nag laa indi Aboubacar xool ko ne ko lu yonent bi jërul woon man du ma ko jël de mu delloo azaka yi bàyyi bay Aboubacar génn àdduna mu dajale waaw Omar ñëw naa nga lii yëpp maa ko indi conteneur yi ngay gis maa ko joxe azaka la Omar ne ko ah yonent bi de dundoon na nga indi mu delloo ko ne jëlul nga bàyyi Aboubacar jël Aboubacar tax toog nga indi Aboubacar jëlul ma ne lu yonent bi jëlul woon Aboubacar jël ko Omar du ko laal waaw ñooñu dañoo maandu waaye fii fii waxuma la ay Aboubacar ak Omar waxuma la ay ñoom ay maam Malik waaye yal nañu yàlla yërëm daal gaa li nekk Sénégal kenn mënu ko wax ci ñeme ñeme yàlla wow ba dangiral def lu la neex fàtte ne di nga dee waaye loolu yëpp yàlla dina ko àtte bis bis dina ñëw yàlla dina la génne sa bàmmeel ne la lii ndax nii laa ko waxee woon yow yaa ko waxoon wala maa ko wax su boobaa dina leer nañ kon ku yebu xam ne daal li yàlla wax moom mooy dëgg waaw jikko yahud mooy yuharrifuuna alkalima am mawaadi ay dañuy soppi baat yi di ko firee nu leen neex wala ñu koy changé def fa leneen waaw di ko firee neneen li aradin fasida ndax lan ci ay poñetu àdduna poñetu àdduna gis naa ay paa yoo xam ne bu ñuy jàng alxuraan dañoo yor benn groupe groupe bu kaamil bu ñu jàngee ba ñu jeexal kaamil bi nga jox leen cinq mille ñu ne ah déet kaay kaay kaay aayay kat yàlla dane wala tastaru bi ayaati samanan qalilan aayay bu leen ko jaayee lu lu tuuti kon nag yow lu tuuti nga indi lii cinq mille la wala tastaru bi ayati samanan qalilan yàlla leen sama aaya bu leen ko jënde lu tuuti léegi nag suñ la waxee aaya bi ah yàllaa ko wax de rek nga tiit ah i waaye man de dina la lambaatal leneen demal demal wal mbokk yi est-ce que mbokk yi wala tastaru bi ayati samanan qalilan loolu loolu loo ci yàlla jublu waaw léegi est-ce que ñoom loolu ñuy def noonu loolu la ci yàlla jublu maa yàlla daf la bi wax ne milliards yii nga bëgg a jënd aaya yàlla yi tuut lu tuuti la moom laa nag milliards yii nga bëgg a jël jalgati aaya yàlla yi jalgati diina yàlla ji wallahi yàlla ngi lay xamal milliards yi dafa tuuti ndax léegi mu jeex nga dugg bàmmeel léegi nga bàyyi ko fi dugg bàmmeel kon nag bu mu la ko jaral bu la bu la alal jaral ngay jalgati aaya yàlla yi mais gis nga niñ ko changé di ci tiital nit ñi di leen terroriser ah ah lii yàllaa ko wax nag damal jógal mu seeti lu gaa yi añee nga dem dajale vingt mille vingt cinq mille cinquante mille ñu ne nii la alxuraan dafa foor alxuraan loo ko jënd jar na ko jar na ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun an nanu yàlla soppi an nanu yàlla woon dëgg waaye mu wërsëgal nu ñu topp dëgg gi alan yàlla wan neen mu wërsëgal ñu sori neen gi borom bi nee na subhanahu wa taala sunu borom mu ne wa nasu fàtte nañ xazzan cër mimma zukkiru bi ca lañ leen wàcceloon lan leen wàcceloon mooy in mooy mooy bible mooy tawraat yàlla mu ne sànni nañ ko fële bàyyi nañ ci lu bëree bëree bëree bëree bëri dara lañ ci jëful wa nasu bàyyi nañ fàtte nañ xazan cër mimma zakarahumullahu taala bi téere bañ leen wàcceloon ne leen lii la yàlla mu ne yahud yi lu bari lañ ci bàyyi waaye mbokk yi jullit yi téere bi yàlla wàcce leen muy alxuraan lu bari lañ ci jàpp wala lu bari lañ ci bàyyi téere lañ ci bàyyi lu bari lañ ci bàyyi li ñu topp ci téere bi daal mooy li ñu neex ñoom tabaski xam ne dañuy lekk yàpp tam xarit nga ne dañuy lekk cere te boobu sax bokk ci ngénte ngénte céet ana yooyu dañuy lekk ba suur yooyu daal moom gars yi moom gëm nañ non il faut ma ngénte jaral na ma sax ma aj ko koy aj lu nekk jaral nañ lekk bu fekkee am na lekk moom foog ñu def ko dañ koy def amma bu amee leneen ñu ne ah wax daal loolu daa metti loolu tollooguñu foofu tollooguñu fi wa nasu ay taraku fàtte nañ bàyyi nañ xazan cër mimma zukkiru bi ca lañ leen waaroon téere bañ leen wàcceloon muy tawraat yàlla ne nañ ko jëfe nañ ko jàngale sànni nañ ko fële ndeysaan dara lañ ci def borom bi ne wala tazaalu tattaliu ala xaa'inatin minhum illa qalilan minhum yow muhammad alayhi salatu wasalaam yow jullit wala tazaalu doo deñ tattaliu nga yër di gis ala xaa'inatin ci ay wor bés bu nekk minhum yu jógee ci ñoom bés bu nekk nga dégg yahud yi wor yu ñuy def bés bu nekk bis bu nekk ngeen teg ci bët wala ngeen digg bis bu nekk boobu yàlla waxee li yonent bi septième siècle ba fii nu toog bis bu nekk ñu teg bët ci waru yahud bis bu nekk ndax yàllaa ko wax parce que dëgg la parce que yàlla moo leen xam bis bu nekk nga dégg jullit yi daje ak yéeféer yi nangam ak nangam jullit ñi gëm ko suba yahud yi violé ko bis bu nekk yahud yi weex nag yu ñuul yi loolu la wax du dëgg gëmuñu dërëm dara parce que amuñu pas-pas bu wér loolu moo tax lu ñu wax duñ ko def kon yàlla ne doo du ngeen deñ wala te zaalu la yàlla indi dugal nee na bés bu nekk tattali u ngeen di yër di gis ala xaainatin ci seeni war minhum yu bàyyi koo ci ñoom illa qalilan lu dul lu néew minhum ci ñoom ñoo dul war ñu néew lu néew ci ñoom ñoo melul noonu ndax ñooñu xëy na seen pas-pas baax na waaye ñeneen ay warkat lañ ñi ñu jàngal sax ay warkat lañ doon même ñi ñu jàngal ay warkat la ñuy doon parce que war lañ leen di jàngal waaw borom bi subhanahu wa taala mbokk yi su ngeen gisee mu nuy wax lii mooy pour nu bàyyi xel suñu bopp xam sunu diine sàmm ko mooy tandiku balaa ñuy yor ay jikko yahud parce que yahud war mooy seen mécc te war hiyal maasiya mooy bàkkaar bu mag wa aslul xiyaana adamul wafaa'i bil ahd cosaanu war cosaanu war mooy nga wax ak nit bañ ko def rek yow warkan nga saa yow waxee ak nit bañ ko def yow warkan nga moo tax borom xam-xam yi naan iza qulta naam fi shay'in mu ne fa atimmoo boo waxee waaw acca ñu ne lu tax mu ne fa inna naam daynun alal xurri waajib waaw waaw bu dee gor a ko wax ah dafa war farata la yow gor soo xasee wax waaw acca bismillah farata la def rek waaye waaw ba pare nga ñëw mu naan waaw léegi day maa ngi jéggulu quoi bi ma la naan waaw daal loolu ab jullit du ko def jullit du def loolu ndax loolu melokaanu bi yahud la borom bi nee na yonent bi faafu anhum jéggal leen ndeysaan lay islaam a baax faafu anhum jéggal leen faafu anhum jéggal leen wasfa lan mooy jéggal leen mooy laa tuaaxisuhum bu leen ko jàppee ñii ñii lañ mel booy war a nga def li ngay def nga baleen nga bañ leen a topp mu ne wasrif wajhaka anhum mooy wasfa du mooyal sa kanam gi bu leen xool ay ñee di wax ak yow sax xoolal fële ndax li ñuy wax ak yow du dëgg jéggal leen dummóoyal leen sa kanam lu waral loolu inna allaha yuhibbu almuhsinin yàlla bëgg na ñi rafetal baat bi démb moo doon sunu xutba juma al ihsaan inna allaha yuhibbu almuhsinin yàlla bëgg na ñi rafetal sëriñ bi nee na bu ngeen di jàng alxuraan bay al aay yi jeex na ngeen bàyyi xel aay yi fu muy jeexee suñu aayee tey fu mu jeexee yàlla bëgg na ñi rafetal fii nu nekk ci biir jumaa ji ku bëgg yàlla bëgg la kon nooy def def lu rafet ndax def lu rafet ci joxe rek la ah damay laajte ndax jox lu rafet def lu rafet mooy joxe nii rek ci lan la ku nekk na ma jox benn fii mooy ndey joor def lu ba def lu rafet bismillah indi benn lu rafet jox ma benn waaw maye sa mbax ne bismillah yow ah jëflante mu rafet na dem ba ba jumaa ji jeex ku nekk mun naa indi benn lu rafet def lu baax booy lekk sax lekk bi sax day rafet dafa war a rafet lekk laa wax lekk lu wal ba xam nga yooyu ba léegi ba léegi wax kenn tegagul sax tàng ñi ne da def lu baax jëflante ma ne lekk bi ñu la tegal sax lekk bi dafa war a rafet dox bi ngay dox ci mbedd bi sax dox bi dafa war a rafet yenn saa benn waay ne la yenn seen ustaas bi gis naa ko bu yox day xulli la rek loolu rafetul kon dox bi dafa war a rafet lekk bi sax dafa war a rafet même boo tëddee di nelaw sax dafa war a rafet sooy wax dafa war a rafet wa qulu linnaas xusnan wala tujaadilu ahlal kitab illa même booy discuter xam nga discussion nu muy tàngee nu muy taree nu muy tàngee yàlla mu ne na discussion bi sax rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na inna allaha yuhibbu iza amila nit yan yàllante bi nee na yàlla bëgg na kenn ci yéen buy jëf iza amila amalan su jëfee benn jëf an yutqinahu mooy an yuxsinahu sooy jëf benn jëf lu mu mën a doon dafa war a rafet al ihsaanu fi kulli shay ci lépp lu mu mën a doon dafa même dawal oto sax dafa war a rafet yéen chauffeur yi boo nekkee circulation bi fexeel ba nga def lu rafet dawal bu rafet même yow menuisier lal yi ngay defaral nit ñi bàyyi chaise yi defal mu rafet yow maçon bi li ngay liggéey dafa war a rafet ndax foofu rek la lépp looy def dafa war a rafet xoolal ren bi moo gën a métti yonent bi nee na ren bi sax dafa war a rafet inna allah yuhibbul muhsinin yàlla bëgg na ñuy rafetal kon ku bëgg yàlla bëgg la soreetul bu kenn sonn ci ñun ku yàlla ku woo xam ne yàlla bëggu la rek yow la yàlla wax ne loo xam ne soo ko defee rek ma bëgg la wala su la benn waaye joxoon léegi benn wird boo xam ne boo ko ñaanee rek da ngay fekk sa xaalis bi ay dix mille kon léegi boo amul kan la ah yow la yàlla nee na bu ngeen rafetalee ma bëgg leen jeex na nan ko tàmbalee tey ñu xool bu dars bi jeexee nan tàmbali ñu rafetal bu demee kër ga boo amee soxna aywa tàmbalil bu fekkoon ne da ngaa daan yegg si ne ana reer bi yow bu dee nga trop yàq nga nga waaw ngay yegg si nga ne waaw soxna si foo toll tey alhamdulilah tey moom ba ah ah voilà gis nga yaa ngi rafetal bu fekkoon ne da nga doon fekk foofu sa papa ak sa yaay doo leen nuyu ah ngay génn kër gi doo nuyoo dugg doo nuyoo mun ngaa xëy suba ba ngoon doo gis sa papa ak sa yaay rafetalal ci ñoom tey acca bismillah commencé say doom rafetalal ci ñoom dëkkandoo yi lépp dugg a génn même dugg bi ngay dugg toilette di fa toog di génnaat jàpp yi lépp dafa war a rafet biñ laajee yenente bi lan mooy lu rafet lu mu wax an taabuda allaha ka annaka taraahu wax na dëgg pour affaire bi rafet tey boo doon liggéey gars yi dawal ci tali bi bu ñu gisee gendarme ci tali bi nu muy def booy booy dafa daan waa jaa ngi nii taxaw waaw gis nga normal tey bu dëgër kay bonjour chef dara da nga di jéem a normal normal xoolal yaa ngi def mu rafet ay na allah ana yàlla même noonu kii liggéey maçon noonu la kii liggéey menuisier noonu la kii liggéey lépp lan la bu borom taxawee rek ki lay liggéey loo bu taxawee rek ngay jéem a jàmbaar jàmbaar loog di fomp ak même kii liggéey ci kër gi di fomp karo yeeg di bale ki muy liggéeyee loo bu taxawee rek mu normal loolu nag du moo tax du dem an taabudullaha ka annaka léegi na mel ne yaa ngi gis yàlla kon nu mu war a mel benn waaye da doon gas foos sama benn dëkkandoo su ma dëkkal foosam dafa fees mu ñëw fekk ma fi may jàngalee mu ne ma man de sama foos bi dafa fees te yow comme yaay yendu ci koñ bi ñiy gas foos yi dinañ la romb teg ma utal kenn ma ne ko amul problème benn bis ma jàngalee toog nii rek gis kenn ma woo ko mu ñëw ma ne ko man sama dëkkandoo dafa am foosam dafa fees te dafa bëgg koo gasal mu ne ma amul benn problème ma tegtal ko kër gi mu dem heure yi parce que waa ji heure yi la fay nekk ni mu demee waa ji ne ko foos bii la mu ubbi ko xool mu ne ko waaw dafa fees kay dañ ne ko léegi dama bëgg nga gasal ma ko defaral ma ko ba mu baax ñaata nga may fay da ko vingt cinq mille wala mu wax ko prix waaye ne ko ah loolu bëriwul mu ne ah loolu laa koy defee de waaye ne ko kon da ngay dem ba ci biir nga gas ko ba mu set mu ne waaw dama koy def amul problème waaye ne ko caabi ji fii laa koy suul caabi buntu kër gi ndax fii kër gi kenn du fi nekk damay xëy sama soxna sama day xëy sama doom yi dañuy xëy kër gi kenn du fi nekk soo ñëwee di nga fekk foofu caabi ji nga ubbi buntu kër gi dugg gas ko soo paree nga suulal ma foofu daal di génne vingt cinq mille yi ne waa ji jabb waa ji ne ko ah dag may fay heure bii nii kan moo may garde mu ne ko yàlla waa jooju vingt cinq mille yi ñëw xëy suba ubbi guddi kër gi gas digg kër gi vidde fosse bi dugg ba ci biir gas lu ñuul li ba mu set ba suuf si xonk si feeñ waa ji génn ñëw fekk ma fi ma nekk mu ne ma sa waa ji moo dangereux ma ne ko kan mu ne ki ma doon liggéeyloo ma tiit dafa ne waa ji fayu ko ma ne ko lu mu def mu ne mu jox ma xaalis bi ne ma yàlla may garde mu ne moo tax damaa gas foos bi ba gis suuf si xonq si yàlla di ma garde ay boobu wóorul voilà loolu mooy al ihsaan mooy mu leer na ne yàlla moo lay garde du nit ñi an taabudallaha ka annaka taraahu loolu la yonent bi jublu ci an taabudallaha ka annaka sooy jaamu yàlla na mel ne yàlla mu ngi lay gis kenn ci ñun mbokk yi tey bu yàlla taxawoon sa kanam boobu dafa sori ngay julli malakal mawti ne kër wala saa nga ni nii gis ko muy mawti mu ne la boo paree da ngay dee julli googu nu muy demee day waxuma yàggaay ji rek waaye ndaw jàng bi alhamdulillah di nga tëj wi tëj wit boo xam ne adduna bi kenn mënu ko di nga rukkoo di askar yo askar boo mu sa xam ci rukkoo di nga ko wax keroog soo sujootee mbooleem du'a sujoot yi di nga ko def cey taaya bi balaa ngay taaya ba pare par xarf atahiyatu lil waay waay saa julli googu ni ñu koy jullee nañu wax ñun ñëpp dëgg gi an taabud allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraak mbokk yi lii mooy suñu dars tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu